bismillahi rahmani rahim nit ñi xalaatatuñu yàlla kenn ku nekk yaa ngi xalaat sa bopp ak sa bakkan ak fooy fanaan defar fi ngay fanaan xam ndax danga fa nelawee ku gën walla déet defar sa lal ba mu jekk yàlla bàyyi ba nga defar ba jekk ba cuuraay reer ba suur ba tàggoo ba defani yaa ci nekk boo xëyee néew ngay doon yàlla rekk ko mën ku xalaatul yàlla da ngay nax sa bopp alhaakumu takaasur xatta zurtumul maqaabir kallaa kallaa sawfa taalamuun summa kallaa sawfa taalamuun ay waay waay kallaa law taalamuuna ilma alyaqin la tarawunna aljahim su boobaa summa la tarawunnaha ayna alyaqin summa la tusalunna yawma idin an innaim ayna man shaado wa saado wa banaw halakal kullu falam tuxnil xulal ana ñuy daan woote ñi ñooy borom gratte-ciel yi ana borom kër yu rëy yi ana borom bâtiment yu mag yi ana boroom alal yi ana borom oto yu rafet yi ana boroom sañse yi tey boo demee ca sëg ya doo ci xamee kenn ñoom ñëpp même pied même égalité même niveau kon jaamu yàlla rek a wóor bàyyi nee na boo àndeek sa sëriñ mu lay nax naan la boo dee maa la res te waxu la jaamul yàlla loo yor na dal bu dee mbëkk na dal kurpeñ na dal yet na dal bés bu nekk ab sëriñ romb taalibeem fii ci 100 mètres wala ci kaso ñu tëj ko fi te ca man dara mu ni kaso yii àdduna yi ku muy të kaso yàlla du mat a wax te ñett sëriñ bokku ci ñett sëriñ bokku ci sukuraat sëriñ bokk ca biir bàmmeel sëriñ nekku fa jéggi siraat sëriñ nekku fa amul benn sëriñ buy ànd ak taalibeem bëgg taalibe ba taalibe bi di ko defal lu nekk ba tax taalibe bay faatu sëriñ bi faatu ànd ak moom du dem da koy ñaan rek doo bëgg sa sëriñ ba muy dugg suuf nga toppaale ku ñun ñëpp kenn ku ci nekk sëriñ Mansour moo doon suñu bakkan bi mu faatoo dañ ko jooy benn fan lañ ko jooy ak di ko xalaat boobu ba léegi kenn deewul fekki ko kenn deewul fekki ko li nga yëg yow rek yaa ko yëg nit ñi nañu bàyyi di nax seen bopp innahum yarawnahu wa naraahu qariban nit ñi nit ñi nit ñi mënuñoo fexe ba dëgg du dëgg dëgg rek ay dëgg inna allaha huwa alxaq alxaq huwa allah yi ci des yëpp ay caaxaan la réew mi nag toj na réew mi toj na mais du toja toja toja toja toj ba yàq diine ji gis nga diine ji dañuy coow ba yàqoo ca mais duñ coow ba yàqu mënuñoo fexe ba diine ji yàqu te dégg nañ fi lu nekk nag réew mi nag yàqu na complètement completement kenn ku ci nekk boo wéetee ca la la neex boo wéetali ko ca la la neex kenn nekkatul ci li neex yàlla li neex sa bakkan rek ak sa bopp te bëgg ni kenn du wax léegi kenn amatul kàddu da ngay wax li leen neex boo waxee li la neex ñu noppi loola dañ lay femu ca saasa yor seen ay média yor seen ay télé yor seen ay rajo yor seen ay journaux ni la teetwaa noppil muut mbaa mott ñuy génn di wax lu leen neex toj nañ dëkk bi karte nañ ko yàq nañ ko lu leen neex guddeeg bëccëg bërki démb la France wote góor jigéen kenn ñemewu ko tudd ci Sénégal te Sénégal bokk nañ ci yàgg na buy demee ba góor jigéen ñi taxaw naan dañuy def marche fan la ñu jëm ci réew moo xam ne quatre-vingt-seize pour cent ay jullit télé yi génn yëpp ñi ngi carte ñëpp carte loo nañ leen yónnee ma texte SMS kenn xamul foo jëm làmb fecc way amul kenn xamul fan la réew mu jëm pays sous-développé comme Sénégal kenn amul dara te kenn du wax fan la ñu jëm formé ay nit yoo xam ne ay sëriñ lañ leen tuddee ak i oustaz ñu contre dina ji dégg nañ fi Salman Rushdie dégg nañ fi talima nasri ku nekk dégg nañ ko kenn ku ci nekk xam-xam nga jàng ba ni kar xaddaafi mii doon wax ñu di ko yërëm waxoon na fi ci ci génne na fi benn téere boo xam ne dafa ni woon xul yi yàlla wax ci alquran yëpp xul yi amul muhammad la ko doon wax te muhammad nekkatu fi kon bu kenn xul huwa allahu wala qul audu nañ ni huwa allahu ahad loolu mooy xew ba tey jii mboolem média yi nga gis yëpp télévision yi fii ñi ko jiite ñu ci bari ay jullit lañu amul benn émission diine bu ñu fay def lu dul dañ koy masqué li ci des ay émissions yu ndaw ndaw lañ ñuy tegal di ñu ko may di ñu foye di ñu foye di ñu tegal ay yoo xam ne kenn xamu ko yàq nañu njaboot gi yépp léegi kenn xamatu foo jëm ku nekk jóg artist nga ku nekk jóg nga artist nga ñu jël ñoo xam ni seen kàddu warul jóg am na ñoo xam ni dëgg dëgg dëgg al aashiqu ida takallam halaka wal aarifu ida lam yatakallam halaka am na koo xam ni war wax waru ko bu waxee dañ ko war a tëj ak koo xam ni bu noppee dañ ko war a tëj ñu war a wax nañu wax nañ leen bàyyi ñu wax ñu war a noppi noppi mais dëgg-dëgg yow ca làmb ja yaa fay jiite ca jàkka ja yaa fay jiite ca waxtaanukaay ba yaa fay jiite ca gàmbu ga yaa fay jiite fan lañ jëm bu fekkee ni ñuy jiite ca làmb ji ñuy jiite ci jàkk ji jiite ci conférence bi gàmm ji fu ñu jëm mais réew mi yàqu na réew mi yàqu na mag ñi nit ñi talatuñu seeni njaboot njaboot ji talatuñu kër gi kenn xamatul fa sa doom di jële réew mi yàqu na nañ ci wax gis nga lii ñuy wax nii du jëm fenn gis nga fi mu toll nii tubaab yaa ngi bëgg a dee jaaxle nañu xamatuñu fu ñu jëm ñun lii ñu am a kës néew nañ ci téye te mooy mag ñi te mag ñaa ngi jeex de. bés bu nekk ñu naan ñu ay réew réew moo xam ne alaaji Maalik nga fa tëdd ak sëñ Touba dama ni soo demee ci ay iraq yi ay yonent kese fa tëdd yàllaa ngay bombarde seeni dëkk ya amul benn nitu yàlla buy ëpp waxuma sax yonent yi waaye amul benn nitu yàlla buy ëpp doole saxaaba yi saxaaba yaa ngi tëdd ci àll bi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni ki gannaaw yonent yi sama saxaaba yi gannaaw saxaaba yi nag ka gën su ma lamsal su ma lamsal su ma lamsal su ma lamsal ñuy bëgg a rey rek alaaji Maalik a ngi fi tëdd diwa ngi fi tëdd diwa ngi fi tëdd di foye nit ñi di def lu leen neex boo ubbee rajo yi guddi da ngay tiit wax sa xalaat ku nekk di génne ku amul xalaat mooy waxee xalaat foo jëm léegi ñu jëm ci wàllu ah léegi ñu jëm ci wàllu vacances yi lu ne ngay gis lu ne ngay dégg fu ñu jëm nañu yar sunu bopp yar sunu njaboot delluwaat ci diine yàllaay dëgg de yàllaay dëgg de fi mu toll ni nit ñi wuti alal moo leen gënal wuti yàlla wuti yàlla dootul dara ci ñoom koo ci waxal mu ni la yàlla soxorul yàlla garaawul yàlla soxorul de yàlla demul bay soxor yàlla amul sax coxor moom yàlla du lakki du dóore yow yaay lakk sa bopp yont bi sallallahu alayhi wa daf ñuy nettali benn xadis boo xam ni euh, dañuy seen benn euh, yowmal qiyaam yowmal qiyaam dangay gis dangay gis dangay gis euh, safara jóg wuti wuti pangama mooy fa ñuy régler jaam yi ñépp yonent bi dal di taxaw gis safara bés ba rasulullahi dafay wuti safara safara daf koy ëpp doole moom muhammad mu yooxu seydina jibril ni ko waxal ci safara gaaw parce que mi ngi wuti sama xet naa Jibril jël benn ndab wala butéel wala dara bu def ndox jox ko ni ko wis ko ci safara mu wis ko ci safara safara sa fay mu ni Seydina Jibril ndox mi mën a mu ni ko mooy sa jooyu xeet yu ragal yàlla di daan jooy la ma yàlla waxoon naa koy taataan moom laa taataan tey moo fay safara moo tax wa bukaa ul xaasiin muxtafar yow muy jooy ci biir julli te gëmoo yàlla ragaloo yàlla bokk la ki ragal yàlla bay jooy ci biir julli nit ñi nañu jaamu yàlla te bàyyi caaxaan gis nga bu fekkee ni kër seen Hadj Malick gi ñu gëm dañoo dem fekk leen ñëpp di naan sàngara bu ñu taxee dafa ni sàngara dafay dagan dañuy nax seen bopp naudu billahi min abdin tahallala ma qad xarama allahu makrallaahi qad amina Sidi Hadj Malick nga ko wax maa ngi muslu ci jaam boo xam ne dafay fekk lu yàlla daganal mu di ko xaraamal wala mu fekk lu yàlla xaraamal mu di ko daganal sëriñ bi day wàññi leer ak xamoo xam na muy bàkk na muy ñaaneek na muy tuubee du dëgg tuub benn la bàkkaar benn la amul ñaar amul ñett bu ko defee yàlla duma ko bu ko taalibe bi defee yàlla duma ko te bu ëllëgee histoire dana am alaaj Maalik waxoon na ni man Maodo moomu ma aljanna damaa xam yoon wi nañ ànd ñu bokk jaamu yàlla bu ëllëgee lu am ñu bokk waaye yowmal xiyaam yowmal xiyaamu jàmbur la ay quartier laa ki kër ki ay roq boo fa nee cëpp jeex na fi mu toll nii sëriñ sa fa jiitu kenn xamul fu ñu ne ña njaboot ga fa jiitu it kenn xamul fan nañu placé kumpa de nañ jaamu yàlla redressé waat nit ñi fexe ba kenn ku ci nekk la nga moom ñu jox la ko la nga war a def nga def ko nit ñi liggéey te bàyyi caaxaan gis nga caaxaan baaxul toppale di am du du dëgg du yàgg na nit ñi liggéey liggéey li ci yàlla defal maam Adama kenn xamul nu toll junniy métier la yàlla wàcc ci mam Adama métier yi bu ci nekk boo ca nekkee te gëm ko bàyyi ak yàlla wa aqilun yakunu fi shay'ayni yas'a fala thalitha duna may ni hasanatan takunu lil maadi wala dirhamun min al maashi baadi fala thalitha na nit ñi liggéey sabab su tarku tasabbubi qul min su'i ma adabin sabab leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya noo ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di baalu xaq ñëpp di ñaan yàlla yàlla bu mu nekk sunu mujj jataay yàlla na fi yàlla wàcc xéwal wàcc fi sutura bu ñu waxee luy offensé ñoo ngi koy jéggalu wa ma tawfiq illa billah ñi ngi ziar ñëpp